gàccee la ko def ci boppam gàccee la def nii dafa amoon defet ne nag xaaral ma dem fagaru defaraat sam bopp moo tax ku dem seeti ko rek dégg naa booy dem dafa ne est-ce que xam nga ne li fi amoon dootu fi am dem ne ma ngay dem uti doole pour ñëw delloo delloosiwaat mbir mi fañ ko tegoon moo tax ku yeewoo Sénégal rek war ngaa am lu la bett fi mu toll nii parce que ñëpp jàppoon nañu bu ñu génnee ci mars 2021 Macky Sall dina seet li des ci nguuram mu xool nu mu koy rafetalee ba dem ci anam yu gën a rafet bàyyi fi réew mi ni mu ko fi fekkee woon te bañ fee yee fitna goo xam ne dina juraat ay bakkan ak leen ak leneen